الله رسول الله حبيب الله حبيب الله نبي الله شفيع الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tafsir abdourahman mbokk jullit yi asalaamualeykum wa waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi alladi xalaqa al insana min nutfatin summa sawaahu wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi sayidi al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaa'i wa man walaahu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam Chérif ñu ngi lay nuyu jërëjëf di nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ni waxtu wi ñu ngi seetaan émission bi di seen suukaru koor di yeesalaat suñu njaal ak suñu ñaan ci bàyyi alxaaji maajoor bu na ñang ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na xippee aljana ñaan yàlla subhaanahu wa taala njaboot gi mu bàyyi gannaaw yàlla na ci yàlla teg loxo waaye jaale bu baax suñu yaay ajaa biti puy maajoor macha allah ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ko séqal mhm. njaboot gi yëpp fa tabarakallah bu ñu tegee ci loxoom suñu jaal mu mat ndax nag xam nga shérif yaa biti moom a jëkk a yóbbu màkka ngir yonent bi kere ba may yóbbu màkka xaw ma ko fa tabarakallah ñu ba àgg màkkatal mukarrama mhm. mu ne man ak fii laa la mënoon a indi waaye nag war a ñaan ak luñ fi war a wax mm. yaa ma ko gën a xam ñaanal sa soxla macha allah kera maa ngay ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mm. yàlla nag ma may ma bañ di fi géej waaye léegi mm-hmm. léeg-léeg sax ma daal di dugal tappale daan ni madame seen plat de tour mm-hmm. fa tabaarakallaahu ah man na bëggoon noppalu nangam nangam mm-hmm. waaye déedéet ndax ñi nga xamante ne ñooy ujaaji kon ñu ñaanal yaa béti liggéey boobu mu tàmbali yàlla na ko yàlla àggale yàlla na ko yàlla nangu bàyyi maajoor yàlla na xippee aljana bismillah jërëjëf xaali Ousmane bu baax defe naa ni dañu war a dem Gabon le 9. incha allah bu soobee yàlla fa la ñu am conférence. Mm-hmm. ñu ngi nuyu bu baax Seydou Sarr. suba insam incha allah mu war a ñaanal tamit waajuram. incha allah ca Sidé Jili Mbay. incha allah incha borom waajur boobu. yaayam boobu bu sell bu tedd boobu. yal na yàlla tabbal ko aljanna. yal na yàlla yokk leeram tas ñu ci barkeem. ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. ñu di ndokkeel conférence bi rek ca Libreville la. Libreville taala waaw le juin. waaw incha allah tamit le 6 juillet. waaw incha allah ñoom Daouda Sarr. waaw waaw incha allah ca New York. jeune Tidiane. waaw jeune yal na yàlla jàppale leen yàlla aar leen. yàlla sàmm leen waaye ñu ngi woo ñëpp nag bisu korité bi incha mm-hmm. allahu taala. Mm-hmm. ñu war a def fête bi fii. Mm-hmm. ci place de l'Obélisque. invité nañ ñëpp. may ñu kenn ngànt. ndax lan bisu yonent bi la sallallahu wasallam. tuddewuñ ko kenn. amul parrain amul marraine. parrain beeg marraine beeg ñëpp. jënd dénk nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag alhamdulilahi rabbil alamin waaye xaali Ousmane démb yaa ngi woon ci lu am solo nga nekkoon ci wàllu liggéeykat bi ni mu war a sàmmonteeg waxtu yi ni mu war a joxee ak liggéey bi waaye ki nga xamante ni moo ko bind patron yi Tafsir defe naa ñoom tam war nañu indiwaat yërmande war a mën a fay gaañi waxtu wi ñu waxanteeg ñoom am mën de ci ñoom xam ni itamit ñoom ñoo leen njaboote léeg-léeg nga am patron boo xam ne yaa ko mag mën nga koo jur waaye yàllaa ko cëral nga jox ko cër ba mu mat sëkk waaye nag moom itamit war na ànd ak wàcc war na ànd ak woyof war a taxaw nag lépp lu emploi bi di def benn moom war na mën a def téeméer ndax moom mooy exemple bi loolu nag boo ko indee ba noppi tafsir nga war a waxtaan ci éducation ndax yàlla wax na ci alquran yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquuduha annaas walxijaaratu alayha malaikatu xilaalun shidaad laa yaasuuna allaha maa amarahum wa yafaaluuna maa yumaruun xaali Ousmane baarakallahu Chérif yal na yàlla fay la amiin fa tabaarakallahu comme ni nga ko waxee rek li nga xamante ni mooy wàllu ñi féete kaw mhm. defe naa ne ñooñu ñooy patron yi tout à fait muy moom la ñuy wax patronat bi mhm. ñoom it li ñu li leen lislaam di diggal rek mooy yërmande mhm. gis nga kamaata diinu tuddaanu kenn ku ne li nga leble rek moom lañ lay fay ah, gis nga boo yërëm mais ñi nga xamante ne ñoom nga tane. ñoo la féete suuf. Mhm. ki ne ci kaw daf lay yërëm. Mhm. li nga lebal say employé yiy liggéey ak yow. Mhm. xamal ni bu ëllëgee suñu boroom dala koy fay ci sa njaboot. seen àdduna dara du jafe. kon nag loo mën a dimbalee rek nga dimbalee ko. xam nga suñu boroom ah, maam Sidi Hadj Malick radiyallahu taala anhu mu ngi wax ci xilaatu dahab bi muy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa di wax modestem mu nga naan ima. abidun wa sibyaanu yusallimuhum mumaazihun gayru xaqin maa ilayhi numi mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ay jaam yu jigéen ay jaam mhm. ak ay jaam yu góor mhm. yonent bi da leen daan romb di leen nuyu di taxaw di wax ak ñoom pour wan la rek xam nga lu tax mu wax wax jooj mooy wane ni yonent bi xeebul woon kenn kon yow mi nga xamante ne yaay liggéeylu ñi lay liggéeyal kii bale bu dul woon teeg moom yow yaay bale kon nag moom du sa jaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo la gën fuuf sallallahu alayhi wasallam bu dee patron moo la gën a doon patron fuuf ndax nag moom mooy sayyidul xalqi mbooleem sayyidul waraa lu yàlla bind moom mooy sa patron sallallahu alayhi wasallam waaw bu demee ba romb mbooloo moo xamante ni ñëpp dañ leen a moom hmm. ci ay góor ak ay jigéen mu taxaw nuyoon teeg ñoom hmm. yamu ci de mu maasixun day kaf léeg-léeg mu kaf ak ñoom sallallahu alayhi wasallam kaf ree hmm. du tax ñu yàpp la mumaasixun xayru xaqin maa ilayhi numi sallallahu alayhi wasallam da daan xaf ak njabootam mhm. te taxul kenn yab ko mhm. sallallahu alayhi wasallam mhm. loolu lan lay waral day waral njaboot gi lay liggéeyal dañ lay gën a bëgg te gis nga boo fexee ba ñi ngay ñi lay bëgg la boo fi nekkee ak boo fi nekkul dañuy sàmm sa liggéey waaye boo fexee nag ba ñu en la te loolu léeg-léeg patron bi moo koy waral boo fi nekkee dinañu liggéey de waaye boo demee ñu saboté sa liggéey te loolu kenn ku ne war na koo moytu gis nga sallallahu alayhi da sallam daan na daan na sanctionné mhm. wal kaffu maa darabat unsan wala dakaran maa mhm. xaadiman aaba min aybin walam yalumi mhm. sallallahu alayhi wa sallam maa kaana muntaqiman lin nafsi muxtajiban amma taama fa lam yamdax walam yasmi moom mi nga xam ne mooy suñu royuwaay bi ñu yàlla royloo sallallahu alayhi wa sallam mosula mbugal kenn ngir boppam moom nga tooñ en personne sallallahu alayhi wa sallam da lay jéggal kon yow mi patron bi ki lay liggéeyal yow la tooñ en personne loolu yoonu liggéey bi nekku ci traité ko ak moom na nga koy baal ko bu la neexee fayul waaye ci cadre liggéey comme tooju la violewul wul benn luwaa ci wàllu liggéey bi waaye waaye en ko bu mu tax loolu mhm. mu ngi mel ni rek léeg-léeg nga gis patron boo xamante ni am na employé bu ne ci këram di liggéey ci moom mhm. politique jot mu faral keneen faralu ko waral mu dàq ko mhm. jaaduwul parce que li ngeen li leen boole du politique li leen boole mooy liggéey bi mhm. kon nag fekk muy respecté tomb yi nga xam ni moo leen boole ci wàllu liggéey mhm. jox ko cëram yemale ko ak ñëpp mhm. lële ca biti la nekk moo tax maam Seydi Hadji Maalik ni gis nga yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loxoom masula dóor góor rawati jigéen ku dóorul góor dóoroo jigéen sallallahu alayhi wasallam ngir baax te gën a jàmbaar ñëpp man ñëpp te kenn masul wax koo dóor sallallahu alayhi wa sallam mm. wala moo xam góor la moo xam jigéen la mm. loolu mooy wane ni am nga yërmande kon yërmande mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mam Seydi Hadji Malick nee na amoon nay surga mm-hmm. waaye maa xaadi man aaba ay aybin walam yalumi am na ay surga yu ko daan liggéeyal mm-hmm. waaye léeg-léeg surga yi juum waaye léeg-léeg bu ñu juumee sallallahu alayhi wa masu cee xas benn surga wala mu sikka la wala mu nangam la loo def rek wa kullu cheyin yaqulu llahu failuhu law lam yacha daaka maa qad kaana min adami léeg-léeg day am mhm. waaye bu njuumte amee sallallahu alayhi wasallam boo ñëwee wax ko mu ni la yàlla la neex mhm. bu neexul woon yàlla lii am du am kon nag amul benn problème mhm. macha allah jéggal naa la ngir yàlla yow it jéggal ma te yàlla tax nga ne ko jéggal naa la ngeen la liggéey moo tax gars yi dañ ko bëggoon moo tax yàlla ni ko fa bi maa rahmatin min allah waaye nag Chérif gis nga loolu yëpp bu ko yonente bi ma nee sallallahu alayhi ñi ko daroon man ko patron bi ñuy ñaan loolu xam nga fan la koy mane mm-hmm. mooy ci yar mm-hmm. aaya jooju nga jël ci yar mm-hmm. yaa ayyuha alladina amanu quu anfusakum wa ahlikum naaran yàlla subhaanahu wa taala bu ne quu fegal leen anfusakum seen bopp wa ahlikum ak seen njaboot naaran safara yàlla subhaanahu wa taala xam nga lu mu ci jublu mm-hmm. mooy yar sa njaboot mm-hmm. gis nga njaboot dañ koy yar mm-hmm. rabbu baniikum allimuuhum haddibu fatayaatikum fal ilmu xayru qiwaam njaboot dañu koy yar njaboot dañu koy sellal njaboot dañu koy jàngal parce que sa njaboot boo leen yarul sellaloo leen jàngaloo leen loo leen fi ti bàyyil bu ëllëgee ku ñu yar jàngal ko mooy ñëw nax leen lekk ko dem yoonam waaye sa jaboot boo ko yaree jàngal ko sellal ko même boo ko fi bàyyilul dara bu ëllëgee tamit moom dina lijjanti ba am dara mhm. defe naa ni ba gannaaw bi ma ko nuyoo xaaji Moussa Mbuub barki démb mu ngi koy wax moom la xaw ma sëriñ am na ci ku ko wax mu ni seen papa daf leen a waxoon ni bi ma leen di yar pour bu dajee ko yaree di ko moo tax. Mhm. loolu la wax Serigne ko wax. Serigne dégg nga mu ni dama leen yar pour bu ngeen dajee ak ko yaree di ko. waay waay boo yaroo dajee ko yaru kay problème du am. amul parce que moom la mu am lay wane nga wane la nga am problème du am. Mhm. mais xam nga fan la yar di feeñe mooy nga dajee ak ko yaree di ko mu offensé la egg ci yow foo xam ne waru foo woon a egg nga wan ko di ko man kat ku ñu yar laa. Mhm. mooy faafu anhum wasfa jéggale leen te jéllale nga jéggale jéllale ñu xam ni kii mënoon nga koo faj nga jéggal ko ban koo faj foofu la yar di feeñ Chérif loolu yépp nag gis nga yar du xaj ci émission waaye yar dëgg mënuñu koo def te du yaay yi ñuy tànn gis nga faw ñuy tànn jëkkër faw ñuy tànn jabar ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ne saa bu leen ku ngeen gërëm diineem ak jikkoom bu leen ñëwalee may leen ko soxna ku ngeen gërëm diineem gërëm jikkoom mooy ku rafet jikko ba pare am diine saa bu bëggee seen doom may leen ko sallallahu alayhi wa bu waxee loolu c'est parce que jikko mooy mbir mi mhm. waaye jikko jooju ay wayjur ñoo koy def ci doom mhm. ka ca jiitu nag di ndey ndax alxadaanatu lil ummi mhm. kon am na yaay joo xamante ni ku ko wut doom joo ca am lu la ca dal yow la sama baay alaaji xarifa ga yàlla yàlla dooli njëggalam da daan naan tam jabar ñett la jabar ji nga bokkal ci wàllu ndey jabar la la ca sa yaay moo ne ci moom jabar ji nga bokkal ci wàllu baay sa jabar la jëlal la ne ca sa baay moo ne ci moom ndax yéen a bokk deret mhm. jabar ji nga dëkkal ci koñ bi nga xam ni yéen a màggandoo yaroondoo la mu wane ca koñ ba noona la mel jëlal kooku sa jabar da du la bett mhm. mu ne bu ñeenteel bi nag boo baaxul ma ne ko baay boo ban la mu ne loo dajeel jël loo gis ba mhm. mooy dox ci mbedd mi rek dajeeg benn xale rek kaar macha allah yàlla binde ko neen benn bind bi nga jël ko takk ko ah loo dajeeg mu jëlal boo dajeeg mu doon <laughs> leneen it eh, nga jël rek ndaxte yaa tànnul parce que wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbi gis nga mbir mi doom yi ci ndey yi la <laughs> Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu dinaay faral di wax ni Mamour Anta Sali kenn laam laameewul wilaayaam <laughs> waaye waat ga maam jaaraa ko waat te ba mu ko waatee moo wàcc mm-hmm. moo ne billahi lazi laa ilaha illaa huwa budul woon teeg maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum mm-hmm. walakin rasulallahi wa xaatiman nabiina mm-hmm. dinaa jurub yonent waaye nag aaya ji moo tax du ma jur yonent waaye dinaa jur ku ñëpp di dégg ku yonent di tiitaroo Cheikh Ahmad Bamba xam nga ne bu yawmal qiyaamee sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba dina bokk ci ñi muy mm-hmm. ko yàlla boole defal xam nga tey boo jëlee seexal xalifa Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu mm-hmm. maam Sidi Hadji Malick kenn laam-laameewul wilaayam waaye jëlal maam Sidi Hadji Malick mm-hmm. waatul maam Roqaya Njaay moo wax ni damaa bëgg doom ju baax ju ñëpp di dégg ci lu mm, baax moom ba mu ko bëggee moom moo liggéey liggéey ba ba yàlla may ko doomi maam Roqaya Njaay jaag Seydil Haaji Malick muy borom gone kaare baak sàkkala yàlla ba radiallahu taala anhu Chérif kon mbir mi yar la mhm. waaye yar bi nag départ bi la ñuy faussé léeg-léeg lii faussé départ bi mooy soxna sañ war a tànn lañ dul tànn ay dara moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan taxayaru li nutafikum mhm. ñu ne ko lu tax mu ne fa inna al irqa dassas mhm. tànn leen fi ngeen di def seen jiwu ndax siddit dafay wàllante kon meen dafa am doole lool lool lool moo tax nit di ngeen gëj a gise ca Adam ak Awa waaye bu ngeen bokkee nàmpandoo ci benn ween donte six la rek bu bu te six mois la nàmp ci moom rek dalay aram ndax lan sa sœur la kon nag dañuy wax ni bayre ci bàyyi lañ koy jëlee waaye jom ci meen lañ koy jëlee kon nag yaay yi dañu war a tànn bu baax sa doom da nga koy tànnal yaay ju baax mhm. xaali jër jërëjëf éducation nag bëgg nañ koo gën a yaatal mhm. xam naa ni émission bii di ñëw mhm. ñu gën ci yaatal bu baax a baax parce que yar mooy lépp te yonent bi dafa ne woon addabani rabbi fa ahsana ta'dibihi yàlla ma yar rafetal sama yar kon boo xoolee ba xool lépp ci éducation la lépp ci yar la ba ci comportement yeeg yëpp ci yar la kon nag yàlla nañu yàlla dimbali yar sa njaboot nag du rek doom joo jur mhm. waaye kilifa gi day yar ay njabootam mhm. mooy employé yi président day yar population moom autorité yi bu ne day yar ki mu njaboote ku nekk ki nga njaboote mhm. da nga koy yar waaye nag ba nga koy yar na fekk ne yow tamit nga njëkk koo yaru koy mhm. xoolal maam Abdou Aziz si Dabakh mhm. ni mu daan toogee ci ndab ni mu daan téyee ndab li mu daan lekkee ci kanamam yar gi mu amoon ak tegginam bi mu amoon ba du bu daan wax ak doom yi day ne maam Ousmane dëgg la maa jur de waaye lu mu lay jur jur jur jur sama kilifa nga ndax Seydi Hadj Malick mooy sa maam xoolal ku mel ni Serigne Saliou Mbacké xoolal yar ga ak teggin ga te lépp daje woon na ci moom ci martaba kon nag fa tabaarakallahu yar mooy lépp yal nañu yàlla may yar googu ak teggin googu bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhim sibtayni alaami lhuda wa bi sahbihi wa taabiina lahum fahum saadatuna ahlul makarimi wan kon xaali Ousmane Aydara suba jàmm incha allah incha allah yaatal ko nag surtout wàllu boobu ci wàllu yar yar baax na trop. macha allah lan lañ ko yàlla defal. réew mi buñ ko amee rek réew mi dem. loolu la ñu rawantee. réew mi day décoller de. innama al umamu axlaaqun ma baqiyat fa inhum zahabat axlaaquhum zahabu kon mbir mi yar la. yar la macha allah moteur bi yar la. jërëjëf bu baaxee rek mu dem. kon nag yàlla na baax jërëjëf ay yàlla na yàlla baax. baarakallah jërëjëf.